borom ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu borom ma dema dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal yooyu nanu wéetoo borom ma dem dem na noonu Serigne Mansour dem na noonu borom daara ji dem na noonu Sénégal yooyu nanu wéetoo borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu bam daara julee dem na noonu Sénégal jooy nanu wéet lambo Chamet Tidiane ko fi taajoon mu bala nga ñëw moo ay tey moo tax sa ay wi neex na looloo am boy borom ma dem na sëriñ Mansoor dem na noonu borom dara gilee dem na noonu Sénégal jooy nanu weetoo bilaay ku dem ti waawoon bërki démb ba tey gilee ñépp a jooyoo te oh, naan Mansoor dara jànge Sénégal weet na na noonu sëriñ Mansoor dee na noonu borom daara ji dem na noonu Sénégal yooyu na ni moom ak yanjoon te mën a sañse ak lewet te am fuule daan maye ba nit ñi jaaxle ku mel ne kii dootul yombo mam boy borom dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jule dem nga noonu Sénégal jooy nañu weet mam boy bu weeru koor wi ma saan feeñ sëriñ Mansoor nga cee daa jaar tafsir Quraan ak joxe xam-xam mam Abdou moo ko ko seede borom ma dem ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem nga noonu borom daara jile dem nga noonu Sénégal jooy nanu wee mam boy yow buñ la gisaan xel yi day dal buñ la tegaan xol yi day leer xalam demoon na beneex lool sëriñ Mansoor dem na noonu lay borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu weetoo mam boy bu daan nettali waxi Maodo sëriñ Mansoor naan sama maam ne sa maam wax ñëwal wax gi seede na loolo borom na dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu na ba kenn du la ma dem a dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal yooyu na fi wéetoo mam boy ki mooy donoy Cheikhu Tijaan Mansoor ki mooy donoy maam Maodo wam doonu na maam Babacar Si borom ma dema dem na noonu borom ma dema dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu wéetoo am boy buñ la gisaan xel day dal buñ la déggaan xol day leer xalaat na ba neex sëriñ Mansoor dem na noonu am lay borom ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara gile dem na noonu Sénégal jooy na nu wéetoo mam booy Sénégal bari na fii ku ñu naan la alaaji bi mbaa ajaabi sëriñ Mansoor waral loolo biyee Makka yi seede loolo mooy borom ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu wéetoo billaay maa ngi koy jaale jeunesse Tijaan njabootu maam Maodo Malick sëriñ Abdou mi di soppeem al amin si wéet na looloo borom ma dem na noonu Sëriñ Mansoor dem nga noonu borom daara jile dem nga noonu Sénégal jooy nañu wéetoo billaay kon nag am ant atiqan sama kon nag ak malte lañu lay wax gàcce ngalaama Sëriñ Mansoor sa ay wi neex na fi loolo am boy ma dem ma dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu weetoo kon nag ñun nag liñ war ñun jeunesse yi jaar moo ñu takku taxaw taxawal tariqa Cheikhina Tijaan Sëriñ Mansour wax na loolo lay borom ma dem dem na noonu Sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy nañu weetoo billaay kon nag li ñu war jeunesse yi jaar mooy nu takku taxaw taxawal tariqa Cheikhina Tijaan Serigne wax na loolo borom ma dem dem na noonu sëriñ Mansoor dem na noonu borom daara jile dem na noonu Sénégal jooy na nu leetoo. bilaay nee leen am ant ati xanta. leen ko amanta ate xanta kon nag ko amanta ate xanta kon nag nee leen leen ko amanta ate xanta kon nag nee leen ko amanta kon nag ak mata la ñu lay wax gàcce ngalaam sëriñ Mansoor sa ay wi neex na fi loolo kon nag ne la konta ati xamta kon nag ak mata la ñu lay wax gàcce ngalaam sëriñ Mansoor sa ay wi neex na fi loolo